des sans voix leen sargal leen waaye delloo leen njukkal bu baax. ak sëriñ jot naa ku bu ne. ci beneen nit ñi dama Cheikh Bara Ndiaye li muy wax ba pare audio mi nga bañ cee jàngat war nga jeex naa fekk nga maanaam ku bu ne jot naa waaw loolu nag nekk loo xamante ni bii lu doy waar la waaye nag lépp nag defe naa ne expliqué naa ne ko tey am na ñenn ñoo xam ne comprendre dañ parce que mënu ki nga xamante ni ki yaay def ak moom émission mu war a ñëw wax ngeen waxtaan ci ba pare ngir mu ñëw leeral mbir waaye nga ñëw nag di ko jiitu nag nekk fi di leeral te fekk ne am na loo xamante ni bii waaj ngeen ko ngir bés bu mel nii daan di am nett li ci lam ni defe naa ni li nga xam ne bi mooy coow ci dëkk bi mooy sa audio yi nga xamante ne bii nee na xar ci dëkk bi ñenn ñi ne montage la ñii ne audio yi lu tax Cheikh Bara def ko mooma coow li nekkul audio yi nga xamante ne bii wasaaroo na yi demee yawa wala da jàmmante waaw mooy audio yi def effet bi rek ah waaw waaw gars yi euh, président doxantu na deful effet waaw euh, <laughs> yi def mm-hmm. ah, sëñ Bara sa audio def na effet dëgg la comme ni nga ko waxee mbëri def nañu signature contra amul effet président doxantu na amul effet c'est li tax mu doxantu amul effet mooy den ko dénk réew mi muy liggéey mu doon xool lam doon liggéey di sénégalais. bés bu mu liggéeyul mu am droit ànd ak soxnaam doxantu ci réew mi mu dëkk loolu du effet mbëri signature contrat leen doon def te bañ demee safal neen yëngal neen rëg-rëg yëngal na Sa Thiès yëngal na Balla Gaye xam ngeen ko indi na maturité booy ñaa géwél la def nañ fi géwél ba mu saf yooyu du def effet mais li tax sa audio yi def effet mooy da nga sol mbubbam sëriñ man doonu ma ko damaa raxas sumay responsabilité ndax sëriñ du fen sëriñ dafay jub sëriñ du tàppale sëriñ du doon laykat sëriñ day màndu sëriñ day ragal yàlla bi ma xamee nii yëpp nekkul ci man nag ma respecte sëriñ ci ne neen doon sëriñ man ma doon benn mooykatu yàlla bu sikk boo xam ne day jéggal yàlla ak yaakaar ko yaakaar yéen man dem rek donc li tax sa audio yi def effet pour man mooy fi la nit ñi tegoon ak fi nga mujjee wax ci ojo yi moo tax mu def effet ñu continuer Cheikh Bara dañuy waxtaan rek xam nga yow dama laa bëgg ba pare man maa bon yaa baax sëñ Bara hmm. léegi di waxtaan. moom laa bëgg di waxtaan. waaw incha allahu taala loolu lu mën a nekk la. ndax mm-hmm. euh, lu jaadu la tamit parce que itte yi ko nit ñi jox. méritoon mm-hmm. euh, na ñu toog. Euh, indil leen ci ay gindiku. kon mm-hmm. ni ñu ko daan defee ci bépp actualité tamit boo xam ne dafa jëm ci keneen ko dul ñoom. su egsee su jëm see ci ñoom tamit mën nañ cee joxe ay explication yoo xamante ne mooy ni mu demee rek. waaw waaw. incha allah. voilà léegi Cheikh yi nga xamante ne bi def na nga xamante ni yëngal na dëkk bi dañ daa dégg Cheikh Bara Ndiaye yëkkati ay kàddu yoo xamante ni bii nit ñi njortuñu woon ni wax ju mel nii dina jóge ci yow jëm ci ki nga xamante kii moom mooy usmaan Sonko nga. franchement parlé wax dëgg neex yàlla munoon nañoo nangu Kaliphone waxal ko Ousmane Sonko ñu ne noon la munoon nañoo nangu Cheikh Ahmed Cissé waxal ko Ousmane Sonko ñu ne noon la. waaye sëñ Baara bi ñëw di défendre Ousmane sonk gënal ko ci nit ñi ku ko bëgg mu waxal la lu baax ku ca nekk ci moom di def lu bon mu gëmm ko dëgg-dëgg yaakaaruñu woon ojo yu mel nii jugee ci Cheikh Baara rawatina boroom def gis Sa Ndiogou merci beaucoup. dem ba tëkkale Ousmane Sonko wane ñàkk xamam nga tëkkale ko Adama Barrow daal Ousmane Sonko. le fait que nga wane ne Ousmane Sonko xamul dara loolu yéen ñaar la. mais boo demee ba di ko tëkkaleeg président Adama Barrow yëpp Gàmbi la ak yëpp njiitum réew te àdduna dafa gudd tànk te nga te am ngay client Gàmbi ba pare bëgg neen la donc pour man da nga war a jéggalu Gàmbi ci loolu ba pare jéggalu président Adama Barrow normalement. ko mii moog ci loolu wax nga tax ci li nga xam ne bi mooy solo Ousmane Sonko ni mu ni mu fonkee woon bés bi ko président Macky Sall di woo. Mm-hmm. ba yëre bi mu gën a fonk la sol. Mm-hmm. loolu nekk la. dëgg-dëgg loolu moom man iñaan laa ci gis quoi ak xeeb nit ki jàpp ne kaso eh, eh, eh, pale da koo jomb ba ne li gën a for kon yow yaa ngi ko doon seetlu mboolem oh my god wax ji musuma gis ku bañ Ousmane Sonko ko waxee li ba ci man mii. loo xamante ni dara ba dama bëgg a xam ne nga wax ma ci njëlbeen gi ndax audio yi yow say wax wala du say wax. mu ngoog mu ngoog gis nga Sanjogu. Sandiogou yow doo journaliste comédien nga askan wi ñenn ci ñoom ñu ne wal fajiri du rajo ak tele bu crédible ñu ne li tax mooy daf fi mën daf fi nekk ngir Pastef ñenn ci askan wi loolu la ñuy wax ñenn ne mooy rajo voix de sans voix ku ci nekk ak sa gis-gis man nag awma ci benn kàddu ndax du suma affaire waaye yow Sandiogou taxawaay bii nga taxaw non ku la tàccul wax la chapeau daf la bañ wala xamul lan mooy média li askan wi lokk yëpp yaa ngi ko ŋànk di ko dóor sëñ baara mais mu ànd ak tuuti kafagre ak tuuti caay-caay quoi saa <laughs> léegi bi audio yi génnee xam nga ñenn ci waa Pastef dañoo mën a duul dañoo mën a fen dañoo mën a sos dañoo mën a manipuler ñenn ci ñoom nag laa wax comme naqar rek yow la que sañu maa wax Pastef loolu tooñ la Pastef am na ay gor am na ay nit yu baax am na ñu jub am na ñu yiw ñooñu moom ñoo ma gën waxuma ñooñu mais yenn ci fenkat yi dañoo jub naan xaaral ma wan leen li audio bi dañ ko dagg fii dañ ko nangam nangam lii du Cheikh Bara lii du nangam lii du nangam nangam léegi nag Sa Ndiogou tiim na Cheikh Bara mi ñu waxoon ne audio yi du moom dañ koo monté waa nguur gi la état bi la sëñ Bara waxal audio yi yow la wala du yow. sumay kàddu la say kàddu nekkul ne dañoo jël beneen kàddu defar ko ba mu niroog suma kàddu fekk du man de suñ baara déet waay rus naa suñ baara lan la lu xew yéen ñu doon wax ne affaire bi du sëñ baara sëñ baara mu ne déglu leen sëñ baara ay kàddu yoo xamante ni bii nit ñi njortuñu woon ni wax ju mel nii dina jóge ci yow jëm ci ki nga xamante ni kii moom mooy Ousmane Sonko. franchement. nga dem ba tëkkale Ousmane Sonko. wane ñàkk a xamam nga tëkkale ko Adama Baro. ça dire que yow Baara xam nga ne Ousmane Sonko xamul dara. Adama ñoo yem. di ci loolu wax nga tax ci li nga xam ne bi mooy solo Ousmane Sonko ni mu ni mu fonkee woon bés bi ko président Macky Sall di woo. Mm-hmm. ba yére bi mu gën a fonk la sol. Mm-hmm. loolu nekk loo xamante ni bii du dara mais dama ba dama bëgg a wax nag nga wax ma ci njëlbeen gi ndax audio yi yow say wax wala du say wax. merci loolu ñëwaguñ. waaw audio yi. waaw euh, su may kàddu la. ah say kàddu nekkul ne kàddu. ah bon mm, defar ko ba suma kàddu fekk du man déedéet audio yi sumay kàddu la. waaw oh, euh, man maa ciy wax. donte nag. Hmm. Euh, am na loo xam ne dañ ko ci naturel maanaam nekkul audio yu naturel. waaw am na ci lu naturelul man ci su ma gis li naturelul mooy la fait que ngay wax ci suuf di wax ci kaw loolu moom naturelul mais man li ma gëm mooy li nga wax ci suuf ak say nit mooy dëgg ci yow comme ni nga ko waxee da ngay lay rek ah ak tam nit ñi yërëm nga ko ko ñëppay sóob yërëm nga ko gëm ne gars yi sóobuñ ba sóobul donc man loolu la loolu la xalaat daal ba pare sëñ Bara Adama Baro mi ngay doyee daal Adama Baro kooku président jiitu réew la bul di suufeel nit ngir yëkkati sa bopp loolu baaxul. te yow waaye nag Sénégal moom jàng fi ak am xam-xam du benn soo réyee làmmee nag ñu ne dafa am xam-xam teg la foo yeggul waaye ku xam alquran xam diine l'islam doo doyee dal njiitam réew mukk ci àddina waaye malheureusement Sénégal masala rek leen jàng mais duñu acte fii kenn du xam ne jëw dafa bon lu mooy ñu jëw la kenn du xam injustice lu mooy mu dal la moo tax ku ñu jàpp prison ba mu génn rek mooy xeexal prisonnier yi te bi mu nekkee ci biti tal ko donc Cheikh Bara maa ngi lay sant di la gërëm ak lu mën a xew li nga nangu ne audio yi say ojo la du sa du kàddu kenn yow la wax dëgg yàlla loolu gor nga quoi il faut ma féliciter la ci loolu parce que assumer man dama ko bëgg su ñëpp assumer rek naa fekk jeex ci dëkk bi te Sénégal dara tardé lu ko lu mooy naa fekk. nag na ma ko waxee woon. ni ñu ko dégtalee nit bokkul parce que du même audio yi sax du même année. du même groupe du même temps. du même du même jamono. non attends fii kenn waxul ne audio yi même année la ñun waxuñ loolu waxuñ ne benn groupe la dañoo teg say audio kon ke kenn sosalu la te ñaata waa Pastef ñooy dagg audio fii dagg vidéo fa la monté kenn ba tey ñun suñ yoon nekku ci dañu arbitre leen rek yaa sonk la yaa ko doon layal yaa ko waxal li mais bu ñu tuumaal de bu ñu wax ne kii ñun waxuñ groupe xamuñ sa foo ko yónni waxuñ même année la waxuñ ci dara. ñun sa audio la rek comme nangu nga ne moom la rek acca ñu dem. du même effectivement tamit. Euh, dañ koo jël jël fee jël fee jël fee dajale. fexe ba boole ko ba mu génnee ab jumla li arab di wax jumla. mu dégtal ko nit ñi. waaye nag. Ah. non non demeewut noonu audio yi la jël audio yëpp la jël boole par benn benn audio la. parce que comme sa wax la dañuy bañ kiy déglu bi te dégg ñu dajale rek boole mais defuñ loolu ah c'est pas bu waxtaan bi neex ba ngeen fàtte na doy waar 10 000 francs lay jar pour góor buy gaaw a daanu ku amul kàttan 10 mille francs soo wootee ci numéro yu affiché rek jënd ak a baax te wér te garanti la 100 pour cent garanti baara ñu dem. amul benn problème comme que lépp samay kàddu la tamit. lu ci mën a nekk rek soo la ko laajee. dinaa la ci indil ay leeral comme mooy nekkul loo xamante ne dama ko waxoon ak sama nit mu enregistré ma wala mu yónnee woon ko nit doon ko nëbbu mu génn mm-hmm. dafa nekk nit. waaw man man nag bi bi vidéo audio yi njëkkee génn wax naa ne nen leen def jàngat ci su fekkee ne daf doon waxtaan ak xaritam mu enregistré ko yónnee ko loolu du lu baax moom moom buy Ousmane Sonko buy ku mu woon loolu moom ànduma ci parce que xarit confidentiel la. gel bi nga ko seqal ba simmeeku ci kanamam confidentiel la ki nga ko seqal ba caméra sa bopp yónnee ko ko confidentiel la donc. il faut ñu ñu ñu xam ne lu baax day baax mais lu ñaaw day ñaaw mais malheureusement moom mu ne kenn arrêté wu ko kon moom la neex mu am soiwu boppam di wax lu mu gëm merci Cheikh Bara. te dañoo nekkoon ci groupe boo xam ne depuis 2014 defe naa wala 2015 ba ñu foofu. la boo xam ne ci xalaat ak euh, lépp luy xalaat rek euh, dañ ko fay def mu nekk ñu tuddee ko xel am koom la. xel am koom xel am koom la boobu defe naa ni um, oustaz Mbacke la rek. Hmm. maanaam ma nga fa ci biir. Euh, ku mel ne tey Modou Diop Decroix. Mm-hmm. daanaa ko fa dégg parce que invité woon nañ ko fa mu ñëwoon fa ñu am waxtaan ak moom. Mm-hmm. ku mel ne Cheikh Mamadou Rafaay yi am nay jamono. Mm-hmm. dugaloon nañ ko fa daan ko waxtaan ak moom. ku mel ne Mamadou Sy Tunkara. ay Makhtar la Kagula. Euh, oustaz Bamba Ndiaye radiyallahu anhu yàlla na ko yàlla yërëm su mel ne Baye Fallou Cissé ci ñu nekkoon administrateur groupe bi sax ci la bokkoon ay oustaz Atoumane Samb euh, docteur Murtada Gaye euh, Cheikh Baye Niass maanaam Sénégal la woon daal ba ci Farba Senghor ñoom ñëpp ñu fa woon su masaan dara masaan am ci dëkk bi dañ ciy discuter ak lépp loo mën a xalaat rek dañ ci daan waxtaan bari woon ay sart lool nag yàlla def man damaa xaw a dënk ñu bokk ci ñu weerale sart yu bari waa léegi Cheikh Ahmed Cissé daf doon jàngale ba yegg ci nàmp ne damay nàmp ñëpp ne nàmpaloog la Cheikh Baara mu ne dafa dëng léegi dañ koy woowee Baara mu dëng mi moo ko assumé su fekkee ku ne day assumé responsabilité moom mu ne dafa dëng. dara masaan am ci dëkk bi dañ ciy discuter ak lépp loo mën a xalaat rek dañ ci daan waxtaan. Mm-hmm. Euh, bari ay sart lool nag. yàlla def man damaa xaw a dëng ñu bokk ci ñu weerale sart yu ñu bari ñu dàq ñu. Mm-hmm. ñun ñi mer gem nag dem defaat suñu beneen groupe tudde ko xalaat. am na ci groupe audio yoo xam ne ci xalaat lañ ko doon waxtaanee. Mm-hmm. am na ci yoo xam ne ci xelam koom la ko waxtaanee. Mm-hmm. am na ci yoo xam ne ci li ma jàpp. ci benn groupe mais euh, nit laa ci waxal mu dagg ci tuuti. boole ko yee. Euh, taqale ko génne ko. noonu la daal waaw d' accord mais ah. xam nañ ne macha allah yàlla may na la xel mën nga lay bu ñu bu ñu def ñu def ñu nawle tamit yow nga ne yokkuñ say wax kenn defu ci dara yëpp yaa nga taxaw naan kenn nga doon daf ci dagg li yokk mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mos de Cheikh Bara. ginnaaw nangu nga ne merci ça comme nangu na ko rek bu mu fi nekk naan këlee ko dagg gi ça ça va quoi. li nga xamante ni dégg nañ ko muy kàddu yi nga xam ne jëm na nga ne Ousmane Sonko. Euh, Adama Barrow rek waaw li nga xamante ne bi noonu la wane tamit ne Ousmane Sonko mbubb mi mu sol mu gën a cher. ñu ko sol ca ba nga xam ne moom la ko président Macky Sall doon dalal nga wëlbatiku daa dee wax ne kat loolu moo lay wan fonk bi nga xam ne moom la fonk bés bi ak fi ko teg kàddu yooyu nga xamante ne bi moom nga yëkkati lu taxoon nga yëkkati. waaw awoon rek mooy. xaar leen xaar leen ma wan leen sëñ Bara. body language laa bëgg ngeen xool maanaam xool leen xar fay flash xool leen xool biñ ko laajee. li nga xam ne moom la bi body language ah da ngeen di xool bi biñ ko laajee purux bi dafa wàcc mu xaw a changé pour mën a tontu espace boobu noonu eh, ñi jàng wàllum criminologie. am na lu luñ ci mën a jàngaate bëgguma décortiquer mais xool leen bu baax li ma leen bëgg a wan réaction Cheikh Bara avant question bi avant muy répondre xool leen ko bu baax waaye boo ma amoon matériel bu baax ngeen xam ne <laughs> ñi nekk ci net bi mënuñ kàddu yooyu nga xamante ne bi moom nga gis lu taxoon ngay def waaye xool leen li ma li ma leen di woon xool leen. xam ne moom la bi. xool leen ko leen ko ni muy jege waaw ëwalan ak ni muy wanee taflit bi loolu rek langage bu rëy la pour pour pour xam wax bi xool leen. nga <laughs> leen ma ngir yàlla xool lii. ñu ko sol ca ba la ko président Macky Sall doon dawal nga wëlbatiku daa dee wax ne kat loolu moo wan fonk gi nga bi ak fi mu ko bi moom dimbale leen ma ngir yàlla ngeen xool li may wax nii dimbale leen ma loolu xool leen réaction Cheikh Bara xool leen ko ñaari yoon. xam ko par benn baat par benn baat bi man. mën nga lay dawaay détaillé ko par benn baat boo ko defoon patriote yi dóor la mënta nekk sa xool leen réaction Cheikh Bara. daadee wax ne kat maanaam vidéo bi yëpp ci waxi Cheikh Bara bi buñ ko doon attendre xaw ma entendre Amérique fii rek dañ koy jàppare yóbbu. jël leen réaction the body language of Cheikh Bara that's what I want you people to understand look at him. look at him xam naa détaillé ko da yomb ci man comme ni ko ni ko waxee noonu parce que kon temps temps bi ñu war a am fii sax moo ko euh, sa ba. oh my god interview fii la jeexee fii la baara nelawee fii moom oh my god baara nelaw na body language yi baara says it all wax na lépp waaw awalan waaw détail ko benn baat it says all man Sonko Adama Barrow doo mën tane waaw loolu li ñu ko mën a wax rek mooy eh, ay kàddu yoo xam ne ci kaw xe man ngaa wax ne kon da doon xeeb Ousmane Sonko ko xeeb di koo xamante ne da eh, ko xool leen seen ne ci laa teg loolu. xool leen ci ni mhm. tamit euh, Cheikh Bara dinaa la jox mérite mu ne. bi muy wax loolu Ousmane ko ci xeebeel la ko tegoon wax dëgg yàlla loolu moom soo ko waxee ak loo mën a lay mën a lay xam neen ko boo ko waxut xam neen ko mais honnêteté bi nga am ba wax ko félicitation Cheikh Bara yàlla na yàlla yàggal jàmm sa kaw ci barke Cheikhul Khadim bi nga bëgg te ko yàlla na jàmm yàgg sa kaw xool leen body language yi Cheikh Bara. yaakaar loolu bi ñu ci waxtaanee man ma ne la man d' naa ne amul lu ma ci war a jàll may wax. parce que gisuma ci loo xamante ne. Hmm. maanaam information la bu jar di rattrapé di daw di damu pour wax. mën naa bàyyi ba bis bi ma naan waxal parce que jàpp naa ne euh, Ousmane daf koy xeeb. Hmm. loolu du du information. parce que damay wax ne yàlla est ce que du yàlla dafa jël Ousmane Sonko. Hmm. mu ngi ko mbaraanum ku ko gis xeeb ko ba doon lim doon. parce que mën naa wax ne xëy na man xeet naa Ousmane Sonko wax naa ko yow ak Adama yi na yow. wala Adama Baro rek nga tane. waaye jàpp naa ne loolu président Macky Sall mu ci dëkk bi. Mhm. tey. Mhm. non waxa wax rek génne président Macky Sall s'il te plaît nag. ba pare il faut ñeme pour assumer bul ne jàpp naa ne xeeb naa ko non jàpp naa da nga point. il faut assumer ton responsabilité Serigne Bara Borom Def Guiss. Euh, su fekkoonte ne dañu ko yàlla daf ko xamaloon Ousmane Sonko nga xam ne xeebu ko dina gën a dina likkite bi Sonko bien avant muy yegg si fii te Ousmane Macky Sall moo doon service de renseignement dëkk bi bépp information bu am ci réew mi xam na ko hmm. waaye yàlla xamal ko Ousmane Sonko daf ko xeeb hmm. jàpp ko benn gone hmm. bu ñu non président Macky Sall xam Ousmane sonk moo tax mu bàyyi ko boppam ak sénégalais ba ñu weddi ko kirim bu nekk ci réew mi bu ko xamee du la dem jàpp dafa lu ñuy jàpp am lu ñu jàpp am lu ñuy def am lu ñu dul def ci réew mi maa ngi yow mii ni bu ñu doon topp benn par benn heure bii tooguñ fii ñaata nit nga toog wax lu la neex voilà donc ça Hmm. léegi Serigne baara mu ne bu ñu waxaan mbiri Ousmane Sonko Macky Sall Macky Sall dafay wax ci ci ordinateur la yem may laaj sëñ baara télé la ko seetaaneem daf ko dégg ci rajoom daf ko liir journal wala Macky laa ko ko wax ci Bara meew la woon amoon na fi war na ñëwaat wala dafa ñëwaat nekk forme nit xaw ma sax. alors damay wax a muur man xam nga da ngay gis nit mu foog ne dafa mën a wax mais day wane boppam Cheikh Bara Ndiaye mu ni Macky Sall dafa xeeboon Ousmane Sonko parce que yàllaa ko malaan ba xamul ko moom Bara Ndiaye looloo ko dal ba xamul Ousmane ça veut dire que amul baat <laughs> wax ji dafa leer wax dañ koy dégg duñ ko lekk man man ci baatin xam naa ne Ousmane Sonko du falu baat na tukki fii ci Sénégal mënul nekk waaye moom mu ne yàlla da koo nëbb Ousmane Sonko ba xamul ko mu xeeb ko ba ne dafa nilaar ba ne moom moo Adama Barrow yem lu ne mu yàgg ko Ousmane Sonko amul baatin borom baatin yëpp xam ne ne Sonko du falu kon Bara Ndiaye wax na di jéem a lay di joxe ay explication ba dugal boppam it's very clear mu ne Macky Sall am na renseignement am na nangam xamul Sonko boo waxee mu ne ordinateur neen ko bàyyi maanaam yàlla dafa nëbb Macky Sall mbiram mbiram Ousmane Sonko moom it noonu la ko ko yàlla nëbbee ça veut dire que moom amul baatin wax waxal dégg-dégg <laughs> yi ko moom ah. mën mu ngi koy layal mu mu naan mën naa am gàllaajam la gis nga moo ma ne réew mi ñi mën a seet bariwul nit da ngay seet ba gis gàllaajam mag ñi bu ñu la daan xeex dañuy jël sa gàllaaj puus téegal la ba pare delloowaat la ko ngay takk téere rek di këyën këyën ba xëy daanu dee donc buntu tey bu tëjoo amut bi am na lu ko war a mën a dajj boo amee baatin dajjil loolu xool munoo ko gis amoo baatin tëjal sa gémmiñ bul yegg sax ci am baatin bay yegg ci def gis ça moom dafa dafa trop quoi donc bul jéem la layaat naan waa xëy na baatin ni sonk la digg ba sonk amut baatin ci li nit ñi ne la ne rek ci li nit ñi ne rek la man moom mosuma dem suite ba te bañ tuumaal ma fa dara man. am ak si fi mu des. te jàpp naa ne loolu tamit wéetuma ci. parce que 2019 ak léegi def naa ni yàggul. wéetoo ci képp ko amul baatin comme ni nga ko ñàkkee wéetu ci waaye borom baatin ni moom nekkuñ ci. Baara Ndiaye dama laa bëgg suma xarit bi. waaw. Euh, Macky Sall nekkoon na fi euh, Idrissa Seck nekkoon na fi nekk candidat. Ousmane Sonko nekk fi nekku candidat. waaw Khalifa Sall mii di ànd ak Idrissa. voilà. sénégalais bu mu leen nax de bi Idrissa Seck di taxaw candidat dafa jóge woon élection amoon doole sonko di door a jub politiquement nit mënul ànd ak sonko lu nga teg ko ci baatin donc ñi analyser politique yëpp Idi la ñu àndal loolu mooy réalité analyser poli analyse analyse politique bu jaar yoon loolu réalité bi surtout donc moom. baatin lay waxee ba pare mu dugal leen ci baatin génn naa dem ci saayir déedéet baara du noonu huwa lawalu wal aaxiru wal zaahiru wal baatinu alquran la mu ngi ci suratu hadid yi ca xisibu rahman la ko yàlla waxee donc da nga ñu dugal ci baatin da nga ci waroon a nuuru mais parce que xamu ci dara dafa génnaat dem ci saayir ne ko jàpp du benn <laughs> maanaam daf nekk nii ne nii lii motos potosu la lii tàccu la du benn donc sëñ baara yaa ngi ñëwaat ci saayir ci saayir euh, euh, analyse bu jaar yoon idi moo gënoon a taxaw donc bul ñu ne yàlla dafa na bu Barthélémy Sonko nga ñëwaat naan waa ñi ànd ak moom ñoom mi ñi ngay tudd boobu su idi moo ëppoon sans Sonko te effectivement ba ñu demee élection Sonko troisième la jël idi deuxième kon ñu seen analyse politique naxu leen parce que mënuñoo ànd ak pouvoir dañu dem ànd ak ak opposition te kañ ànd la jël deuxième Sonko miñ bàyyi woon mu jël troisième moom la ñuy wax taat ci anglais Sonko taat la am dafa jël third position mun naa ko pronounce na third position third anyway noo ko waxee rek taat la Sonko taat la am ci élection yi ci ci anglais waxuma taat bi ngeen xam taat en anglais donc yow sëñ Baara da nga dugg ci baatin ba pare bàyyi fa baatin demaat jaar ñun yëg neen la dégg neen la dégg neen la dégg neen la de zahir da nga cay wax wala nga dugg ci baatin wax mais boo leen mélangé rek borom xam-xam yi dañ koy décortiquer donc Baara il faut arrêter baatin nga duggoon génnaat nga yaa ngi zahir te politiciens yi ngay bëgg a lim ñañ àndaloon ñoo jël desam sonko jël taat sonkoog seen ginnaaw kon ñoom juumuñ mais yow mi woote baatin ba yegg ci def gis tax xamoo ku war a falo ku war a man a falo yow yaa ni laa pour man suma gis-gis su ma xalaat la rek xam moom saaga ba ma saaga laay fay mais ba ma saaga dama suma xam-xam léegi continué nga ne kan ak kan tey ànd ànd ak Sonko tey la fee romboon Malick Gakou. dafay bàyyi woon Sonko dem ànd ak Idrissa Seck. Mbacke Yolin Dias ànd ak Idrissa Seck. Déthié Fall ànd ak Idrissa Seck. Cheikh Bamba Dièye euh, Mbacke Moustapha Guirassy ñëpp dañoo romboon Sonko. waaw bàyyi ko mu dem ànd ak Idrissa Seck mën nañoo wax ne loolu booba ci ci kaw xeebeel jàpp ne kii daal euh, ku tuuti la koo xamante ne ñun mënuñu koo topp. waaw lañ ko doon xool bu demee ba tey nag. maanaam ñoom ñëpp ñoom bëti ku dem ànd ak moom maanaam li leen yóbbu ba xeebatuñu ko bay ànd ak moom amaana looloo tax xeebat loolu ma dindi ci xeebel boobu ba ñëw tey te tey loolu ko waxoon mën naa am bu ma ko wax parce que booba noonu du doon dara Ousmane doon digaate la waaw tey nag jox nañ ko mairie def na loo xamante ne Adama Baro def ko gàmbi six ans six ans tey nag bu ma waxati ne moom moo xam nga sëñ Bara ginnaaw li nga lay bi mu taxawutee munoo wax ne da ngay défendre Ousmane Sonko ginnaaw bi nga amee erreur ci moom jox ma téléphone bi ginnaaw bi nga amee erreur ci moom ba pare di xasaat Adama Baro yow xamoo lu Baro def Gàmbi ni nga ñëwee di jéggal du ak a defaraatal Ousmane Sonko munoon nga am honnêteté ak respect ci Gambien yi génnee ci waat Baro xam ne danga nga juumoon ku dul juum amul Cheikh Bara mais mënoo juum di defaraat njuumte Sonko ba pare di di di sàgganewaat àqu Gambie yi ak a toroxal Gambie ak tooñ président de la république bu Gambie ça c'est pas normal six mois wu Ousmane Sonko mënul em ak six cent Baro te ku la laajoon bilan Baro mënoo ko wax yan difficulté la fekkoon Gambie lan ak lan la doon liggéey xamoo ko donc honnêteté boo koy defar booy defar honnêteté dafay baax nag nga yegg ci foo xam ne. da ngay mën a wax dëgg te yàlla tax donc il faut nga arrêté li ngay def Adama boro te nga am honnêteté ni nga ragalee patriote yi di leen moytu ndax sa teraanga yu bëri ci ñoom lay jaar nga rusee ko ak joxe ko orma Gambien ba bàyyi seen njiitum réew mi ngay këlli këlli loolu baaxul te rafetul franchement parle loolu moom je suis désolé baara ak mbëggeel gi yëpp loolu rafetul. yaa ngi justifier sa wax yi nga waxaloon Sonko ba tey justifier bu Adama Boro ngay gën a toroxal Adama Boro ak wane na du dara di tollale juróom benn atam Gàmbi ba Gàmbi jox ko deuxième mandat ak 6 mois wu Ousmane Sonko Ousmane Sonko mi taxaw ne jeune Ziguinchor bu fi bool bool nekkoon liggéey ko yem leen ci jakartaay Ousmane Sonko mi lancé buroog benn oto paan moom ngay tollale juróom-ñaari juróom benn ati Adama Boro I think that's that's totally wrong Bara franchement parler continuer layal yow yaa ñu ne na la Ablaye Lo seetaan di nga layal Sonko ba xam ne ñi koy layal mënuñoo lay baara layal. parce que daf la droit mais c'est vrai c'est que bu ñu continuer mbirum boobu sax parce que dafa am tamit parce que même da nga gëmul sax ay projet ci audio yi nga xam ne moom laa dégg ngay wax euh, gis naa ni euh, ay projet Ousmane Sonko yi muy teg nga xamante ne bi moo tax jeunes yu bari topp ko comme lu ci mel ni franc CFA bi nga xamante ne bi Ousmane Sonko nee na. Euh, bu fala daf fiy jóge ak tamit yu mel ni France bi nga xamante maanaam yi nga xamante moom la Ousmane Sonko wax ne day dindi loolu yëpp da nga ko jël football sànni fële ci ajo euh, ci audio yi loolu tamit waaw maanaam li ma wax léegi rek lu ma lay waxaat mooy Ousmane Sonko waaw warta am problème mu woote naa nangam di weddi na ko hmm. xam nga Ousmane Sonko li muy woote ni mu tudd naa la tudd dégg wedd xam nga nu mu tudd dégg wedd waaw nu mu sant hmm. xam gëm xam nga waaw dégg weddi la tudd. Mm. xam gëm. li muy woote dégg weddi xam noonu la tudd dégg weddi xam gëm mais Ousmane Sonko amul risaala bu jugee ci yàlla te politique xeexu conviction la de Sénégal daal yaakaar tas na ci daal. ku jàkkaarloo wax la ko. nga nangul ko ko rek. kooku dañ laa war a dem faj la. parce que dafa ñëw ci penc mu ko a faj. ma ko war a weddi. a firndeel a doo ko a mm-hmm. mm-hmm. mu ne. waaw damay. dagg boobu njaam gi nga xam ne moo dox suñu diggante ak tubaab yi nga xam ne système bi lépp maanaam fen la dooleel la néewal doole waaye maanaam la euh, dooleel borom koom-koom borom euh, xamante ne français yi ñoo ko wékk te boobu njaam gi jaar ci langue yi ñuy làkk mm-hmm. jaar ci monnaie bi ñuy jëfandikoo mm-hmm. jaar tamit ci système bi ñuy dund nga xam ne mbooleem courant bi ñuy jëfandikoo ndox mi ñuy naan téléphone yi ñuy jëfandikoo France ko moom. Mm-hmm. Sénégalais doo verser defe naa ni ci France. Mm-hmm. xam nga lii wax ko ñàkk xam-xam la orange alalu France la ak Sonatel waaye dañuy ñëw nguur gi am ci ña liggéey am ci sénégalais am ci. dañuy liggéey di def lu bari ci réew mi nga jël yëpp jox ko français yi xamoo sax na mbiri orange demee toog ci télé di wax rek ñim neex gëm la waaye balaa orange dafi ñëw ku mel ni man ak yow lan leen def ci réew mi lu mooy mën naa lii kaay leen jaay leen garab nit ñi jar ñu dugal suñ kër yóbbu suñ jong may orange ñëw di employé ay nit ay sénégalais dugal ci seen xaalis nguur gi am ci vingt 27 pour cent ci orange ñuy joxe tax ba mu doy taxe boobu nga mën cee am dara ma mën cee am dara nga toog ne France yaa ko dañuy buub yóbbu donc euh, Cheikh Bara je suis désolé naka la ko français moom ay expliqué ko toog rek wax lu la neex dafa yomb la continuer loolu Ousmane bu taxawee daan dama ko dindi normalement ci borom xel bu mel ne man li ma war a njëkk a def balaa ma koo nangu maanaam li ma njëkk a def mooy nga ne ah waaw du koy weddi parce que lu tax mm-hmm. dangay wax ne waaw lii kii taxaw fii tey Cheikh Anta Diop xam-xam ba toll lay ne man ñu dama koy hmm. hmm. Sonko loolu la diggee woon damay changer système bi waaye lam diggee woon ak lam mujjee def du benn ndax ñi moom système bi ñooñ la ñooñ la ñooñ la lëngool ànd ak ñoom donc Ousmane Sonko génnewul système franchement parlé Sonko mu génnewul si continuer baaraam. voilà ak ku lu baaraam la ñëpp yam ci kanamu yoon ñëpp nekk ci ak ak yelleef ñëpp tolloole ko. nga ne ah waa kii xanaa moom dafa am xam-xam boo xamante ne moom la ko bëgg a defee. ñu ne ah te Cheikh Anta ko ëppoon xam-xam te def ko. ñu ne waaw kon xanaa. dafa am ay milliards yu am ci ay loxoom ay compte ci banque ñu ne déedéet mm-hmm. amul sax ay milliards parce que moom ak ay nitam toujours mu ngi ket dañu ut xaalis ci nit ñi mm-hmm. nga ne ah kon amaana ay relation la ko bëgg a teg mooy dafa am connaissance ci àdduna bi bu bu jëlee réew mi rek àdduna bi dañuy ñëw song ko ñu ne déedéet amul sax président bu mu xam mën naa tontuwaale loolu nga wax benn yoon la mas a dugg ci palais mm-hmm. mooy gis ñu ko Macky Sall invité. amul benn président bu nekk ci àdduna bi bu muy jëflanteel. kon li mu wax tegu ko ci kaw ne ay relation laa téye moo tax ko mën a def. Mm-hmm. mu ne ah kon nag daal lenn la mooy dafa am ngëm-ngëm dafa nekk nit ku dëggu. Mm-hmm. te loolu nag dafa nit ku loolu yàlla denc ci biti nit ki. Mm-hmm. ci biiru nit ki la ko yàlla denc. doo mën a xool nit mu ne la damaa dëggu rek ndax ki dëggoo ku dëgguwut. loolu la mm-hmm. ba mm-hmm. merci Cheikh Bara mu ne dëgg ak fen ñoo bokk départ waaye arrivé la ñu bokkul Cheikh Bara li nga xam nga ko dégg nga ko bii moom du ko faram fàcc répété bi ma koy répété mooy jox nit ñi comprendre Cheikh Bara mu ne dëgg ak fen ñoo bokk arrivé waaye départ waaye bokkuñu arrivé donc fa audio ba départé. ak foo xam départ ak ci penc yu bokkuñ arrivé kon xam neen dëgg ak fen sëñ Baara continuer lay Baara maa ngi jàpp ci téléphone bi. loolu moom borom xel laa koy dàq xam nga li mhm. Ousmane Sonko mu sell mi xale yi di wax yow borom def gis da nga koy dëggal di jël mission waa Pastef di ko tollale risalatu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ Baara baax na ëpp dama laa ëppalewut ci yonent bi continue laaj. salaam li muy mën a mën a wax li muy am am xam-xam li muy am am fasaha. Hmm. li muy am am éloquence. mën hmm. a politique ak nit ñi politique bu rafet. waaw te mi fi ko gën a jege ñëpp dañ ko weddi woon. waaw mu nekk ca dëgg nit ñi ñu ko weddi woon ci hmm. nekkaat ay ñooy wax tamit su réewul ak euh, li parce que sëriñ Tuuba. déet sëñ Baara taxawal maanaam lay bu ne mën nga ko lay waaye nga ne Ousmane Sonko la woote uti wut ak Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasulullah mission wala man maa déggul continuer. ah loolu mm-hmm. bi bi mu koy tàmbali mën ne bi mu njëkk a def mm-hmm. cinq cent personnes yoo xam ne moo leen doon jàngal. waaw ah. maanaam nangu nañ xam-xamam ba nangu mu leen di jàngal. Mm-hmm. nga dajale ne leen penc mii gor yi dañoo sonn. nguuri adduna yi ñu ngi noot doomi aadama yi lislaam te mooy lislaam bi jooy yëkkat ba génn gàddaay lislaam amatul ci dëkk bi tubaab yi teg nañ fi nooteel dañoo bëgg nag jëlee ndox doxin woo xam ne di romb di jàng alxuraan di ko tay waaye di jëfe alxuraan ba nga xam ne lépp luy dul dëgg ci penc bi dañ koy tuxal fa dëgg nekk ñu saxal ko ci penc bi te bokk ci yam li ko suñ Sëriñ Tuubaa lii la woot li nga wax ni dëgg la waaye da caa jiitu te delluwut ginnaaw négocié wut ak tubaab sëriñ si doon négocié ak tubaab bi Sénégal Cheikh Bamba bokku ci musuta yuuxu musuta onk musuta laaj ku ko aw doxal mission ba mu mët te Sonko dellu na ginnaaw di jubóog Ablaye Wade Khalifa xalifa ak ñeneen ña ca des Cheikh Bara du benn il faut nga respecter murit waaye respecter murit yi boo ko mënul respecter Cheikh Ahmadou Bamba ba pare ni politique di demee léegi jël homme politique di ko tollaleeg Cheikh Ahmadou Bamba pour man ñàkk xam la loolu dafa garaaw loolu kenn du ko def bul tollale mission yi du benn boroom doojoor bu ndaw bu ci séq yu rëy yi ko kenn du moom yow murit nga man ma waroon a wax lii nga ne ma déedéet du dëgg waaye nii nga koy waxee ni di tollale yàlla ak yàlli dama jàpp ne da juum te nit matul yàlla na la ko yàlla jéggal mbir mi du mbiru naa fekk neex nga ma rek loo wax dëgg lii su ko beneen tijaan waxoon wala man ma wax ko problème la moo tax toujours damay ñaan ma ne Macky Sall yàlla bu mu am cër suma xol waaye musuma ñemee ñaan Cheikh Ahmadou Bamba bu mu am cër suma xol bu ko amul rek du ma baax ndax waliyu yàlla la est-ce que sax weesuwu ko te ñu ñi ñemewuñ ko wax baara layal te génnee Cheikh Ahmadou Bamba ci waaw waxee cinq cent personnes yoo xam ne dañoo nangu loon sëñ Tuubaa ne borom xam-xam la bu leen sëñ bi ne mën na maa saxal bëgg ci penc mi jële fi fen maanaam quatre cent quatre-vingt-treize personnes yi dañ ko weddi dañoo weddi dañoo Hmm. daal di jël seen i bagages lëngatuñ toog foofu ci biir topp ko ci système boobu muy woote. Hmm. ñu daal dem bàyyi ko fa. Hmm. sëñ Touba des a sept personnes. sept personnes yooyu ci la sëñ Touba nekk di ci nekk di ci nekk. léegi nag comme yow da tëkkale mission Cheikh Ahmadou Bamba ak Sonko nga ne juróomi téeméer leen woon ñëpp dem ba mu des juróom-ñaar mu ànd ak ñoom. Sonko dafa bàyyi nitam dem jëli ñim geddoon ñim doon wax ne dañ leen war a fichier ñooñu la àndal bu tollalee mission yi baara du benn kenn du Ahmadou borom jaam ñi du benn laykat nga yaa ko wax mën nga lay mais fii baaxul fi nga dugg baaxul baara da juum moo tax gis nga nit su juumee li ko gën a yombal mooy li ko yàlla wax tuubal mooy réccu naa bàyyi naa bàkkaar bi te dootuma ko defati kese waaye bul expliquer da ngay gën a dugg. li ngay expliqué nii yaa ngi tooñ yooni murid yaa ngi xajamal lu bari te yëgoo ko te gis nga ni ma toogee di ko décortiquer nii am na ñu ma raw ñu ngi toog xam ne lu gën a raw lu ma xam te duñ ko wax mais dañ lay jéppi da nga leen di mujj suuf da ngay suufee moo tax Seydina Omar ibn al-Khattab daan wax ne dëgg suufeel ma moo ma gënal fenn yëkkati ma te new na bu mu amee baara li ngay wax teguwul nga ne Ahmadu borom jaam ñi juróomi téeméer nit ñoo ko óolu woon ci xam-xam ngir mu jàngal yàlla indil ko ngir mu xeex nooteel indi terangay lislaam fii looloo waral masalikul jinaan bi looloo waral sëtam yu baax yi kenn du sañ mun taqaa ci réew mi corona sonal ñi mu oote xasida 72 heures génnee 50 millions jox néew ju doole kenn defut loolu ci réew mi fii corona man de yàlla ko dàq gëm naa ne ci ñaani sañ mun taqaa ak ñu mel ni moom la ko yàlla dàqee loolu nag su ma gëm mu concerné ma léegi Cheikh Bara yow nga ne moom dafa gore moom Cheikh Ahmadou Bamba ci mission ba desee juróom-ñaari juróom-ñaari nit yoo dem man neen lu ëpp juróom-ñaari million ci àddina son Sonko woote ne ñii baaxuñ dañ leen war a fusillé dañu war a nàngam mu delluwaat ginnaaw wanaat kàddoom ànd ak moom nga koy tolleeg mission Cheikh Ahmadou Bamba il faut respecter nous continuer layal. ba mbooleem ñi ko weddi woon ñëpp dañoo wax ñi ko waat par benn par benn. Mm-hmm. ba mu fekk si ko. nii mm-hmm. Sonko di woote Cheikh Anta Diop bi mu ko wootee fii ci Sénégal. Mm-hmm. tuuti nit a ko gëmul. nekk ci nekk ci ba xëy dee ñu dem suuli ko doog a dikk naan ay waay la mu doon wax. Mamadou mm-hmm. Dia loolu la fi woote woon. nekk ci nekk ci ba xëy dee. Mm-hmm. mu doog a ñëw wax. Mm-hmm. kon maanaam fi nga dugg sax man mën naa la comprendre ay Mamadou Dia ay nangam mais ba tey du benn. Barça équipe la pintoo moo doon deuxième gardien musta joué te lu ne gagné na ko. Moustapha Nam champion d'Afrique la tegul tànkam ci terrain bi maag mooma yem den doon seetaan ah, équipe nationale Sénégal ci ñoom Mamadou Dia ak ñooñu Sonko ak Moustapha Nam jooy na bañ jëlee bi ndax xam na ne am na mérite boo xam ne El Hadj def na lu ne taamu ko takkul médaille takkul médaille d'or pour Sénégal bokkaande takkul ko moom mu toog baa rek jug takk moo tax mu jooy ñu naan les larmes de Moustapha Nam mais les larmes de Sonko aussi baara Mamadou Dia bi nga wax dafa nekk ci mission ba dee te delluwul ginnaaw bul tollale Moustapha Naam ak Sadio Mané ñoom ñëpp champion d'Afrique leen mais jëfini wutee na Sonko ak Moustapha Naam baara leer wala ku mel ne keneen weddi ko ca ay at ndax audio yi am na lu mat ba am na ci yoo xam bi ma koy def moom nekk guma chronique fii ci wàllu fajar yi may tontu bi may tontu nii mooy Sonko mënu changé système bi ma koy wax mm. boobu nekk guma ak émission bii tàkkusoo tàkk. non mais Baara arrêté ay bi may wax ne nekk gu ma fii nekk chroniqueur wal fajiri ak wax dëgg lu mu wuti Sonko du solution Cheikh Ahmed Cissé ci man du ma ci génn du solution te amul solution ba nga koy wax démb da nga ko gëmoon tey nga weddi ko pour la Baara respecté ñu. am abdoulaye mm-hmm. ci wàllu fajiri. kon bu ñu nee léegi deux ans ci ginnaaw. Mm-hmm. am na koo xam ne gëmoon na ne Sonko mënut a mënut a soppi système Sénégal. Mm-hmm. ba tey kat dafa mel ne bu ñu ko xoolee mën naa am léegi da d' accord na ci moom te bokkul Pastef. waaye dàqu ma ne moom Sonko mën na ko. dàqu ma ko. kon nag loolu damaa jàpp ne dañoo wan. man de bu fekkoon ne damay jaay suma ngor Sonko jëloon ma pour ma layal ko ah kon Pastef am gan gan bu mën bés. man na damay lay bay tontuwaale li ñu ma war a laaj mel nag dama ko bëgg a def ci élégant ci ngor ci teeg bakkan moo tax bu mu bu mu métti métti ba ngeen fàtte ne àndala buri mooy garab gi nga xam ne boo ko naanee doo gaaw a daanu dangay ngay sëy dafay neex sa picc kajoor da koy dagg garab gu baax a ngi nii vingt cinq mille jar maa koy jaay dafa am ku jënd baaxul delloo ñu jox la sa xaalis ku nekk ci internet bi. di defante nëbbatuwut kooku ruus naa jaay lu bon comme que nit a am problème ma dem di àtte ñu ne dama war a tëdd kaso ragal naa jaay lu baaxul bu leen fàtte loolu la layal Sonko ne ko sa politique mu ngi évolué sa discours mi ngi évolué ñu la gënoon a bañ balay weddi léegi ñu ngi nangu si mm-hmm. kon continuer ci voie bi nekk mm-hmm. waaye du ci dégg ne maanaam soo non baara da juum ñi gënoon a bañ Macky Sall ba nekk ay noonam ñooñu ñoo ñëw di ko bëgg tey nekk ci ginnaawam di ko tàccoo la ko feccul mais Sonko ñi ko bëggoon ñu bëri ñu ngi retiré ndax dafa dafa immature woon maturité dafa des ci moom comme ni nga ko waxee rek ñoo ko tooñ parce que ñoo ko teg fu mu yëg baara layal. ko def ci tuutee. d' accord seen baara. Euh, waaw lépp Sonko bi ñu tuutee. loolu dafa am foo xam ne moom da faa tuutal Sonko dëggantaan. parce que fii moom <laughs> xaw ma nu koy kii waaye fii moom làqati ko dana jafe Cheikh Bara mhm. parce que xam nga nag sa audio yi dafa gaaw parce que da moom da nga ci wax ne bi moom da dëggal ni Ousmane Sonko séq na ak Adji Sarr mhm. parce que li tax nga wax loolu mooy da nga expliquer wane ni yi couvre-feu bi dafa metti te mandi yu moom fu mu xas ba ñëw day buux. baal leen ma ngeen xoolaat body language yu baara di ko saa njóogu du laaj ni màttee tuñ bi ak ni mu defaat xool leen maa ngi weer suma bopp tam nit ñi xam ne dama mën body language te dama cee sonn fay suma xaalis en ligne jàng ko moo tax ma mën a tontu man journaliste boo may laaj sa yaram lay xool buñ la yebalee ma xam ko bu ma paree tontu la ba nga forox parce que yaram bi mënul fen quoi làmmiñ mën na fen mais yaram bi mënul fen déglu leen bi ko bi ko kii di laaj Sanjoogu xool leen xool leen ni mu def. audio hmm. biñ koy laaj koy laaj bi ko Sanjoogu gis nga Sanjoogu comédien la. am na droit waxee nu mu ko neexee in the field of comedy without any complication léegi bi mu koy laaj sëñ Bara dafa defaraat toogaay ça veut que nervous na yaram bi mënatut a toog cati tànk yi mooy yëngatu mu màttuwaat pour mun a amaat calme parce que nante la sañ Bara ba dama ko bëgg léegi xool leen kanamu sëñ Bara bi ni mu def. audio mooy troisième audio moom da ci wax ne xool leen sëñ Bara. xool bii nga xamante ne mooy troisième audio parce que affaire ay audio la. Hmm. gisoo bii moom da nga ci war ne. gisoo. <laughs> moom da nga dëggal ni Ousmane Sonko. seet naa Adji Sarr parce que li tax nga wax loolu. mooy da nga expliqué wane ni yi couvre-feu bi dafa metti euh, te man yu moom fu mu xas ba ñëw day buux faaw moom nga dem am foo ko yóbbu. noonu mooy li nga xamante ne bii ko waxee ci audio bi n'est-ce pas. yow wéral nga ni salaay moom. lëkkaloo na ak ndaw si. waaw waaw ba c' est que bi ma déggee audio bi dama demee Cheikh Bara ak li muy toog di défendre fi ak bu mu maîtriser dossier Adji Sarr bi. Mm. mu ñëw wax wax jii nga xamante ni lii nan la mënee xam naa ne audio boobu mooy bi ëpp important. waaw audio boobu gën ay ñu ngi koy la gars yi da ngeen may may nag balaa maa leeral loolu. waaw ma am lu tuuti loo xam ne nag man maa ko bëgg a leeral nag ci sama bopp muy lan. te bëgg mu leer lool ci bopp sénégalais na leer ci jëkk mooy. campagne mm-hmm. de publicité. mooy le 21 octobre. dinañ taxaw. Mm-hmm. ci place de l'Obélisque bi pour xeex àq ak yelleefu détenu yi nga xam ne jàpp nañ leen te nekk ay détenu politique. Ah, waaw fu mu jaar waaw xam nga li mu def nii li li mu def nii xaar ma ñëw. li mu def nii li taxoon ma wan leen kanamu Cheikh Bara bi biñ ko laajee audio yi dafa mel ni Sonko dafa laal Adji Sarr pour mu dalal sa bopp nervosité lii dañ ko de gis nga football même boo sonnee en tant que militaire waroon da nga sonn ngay sëgg di xa yéegal sa kawaas en terme de communication Bara Ndiaye xam naa li may wax jàng ko mais xel yàlla koy mel ni wax na ko mu ne amul benn école bu ñuy jàngalee débat politique ak yooyu c'est vrai wax na dëgg loolu moom may la don la moom macha allah dafa am don yàlla na ko jig njaay jaata njaay mais bi ñu ko laajee pour mu récupérer waat nervosité am bañ a jaxasoo moo tax mu dugg ci détenu politique ak nangam naan publicité dafa lay nekk xaw a kafree ba ñëwaat door a tontu man j'aime bien Bara Ndiaye quoi déglu leen li may wax déglu leen bu baax li may wax fi ñu ko laajee xoolaat leen ni leen ko topp non man man man man Macky Sall day nelaw quoi am benn ndaanaan. Ah, ku mel ni Cheikh Ahmed Cissé recevoir loo ko xool leen ko xool leen Cheikh Bara. fa bi dafa metti eh, te man yi moom fu mu xas ba ñëw day buux faw. d' accord Cheikh Bara eh, bi ñu tuutee bi ñu tuutee mais dafa am foo xam ne moom dafa faa tuutal Sonko dëggantaan waaw parce que fii moom <laughs> xaw ma noo koy kii waaye fii moom làqat ci côté la jafe parce que. xam nga nag sa audio yi dafa gaaw. parce que saa maanaam saa ni mu koy laajee moo tiitloo seen Baara da sa audio yi da ngaa mën a ojo tam moom groupe la bokkoon doon wax léegi xel mi day jaxasoo parce que saa ni mu ko koy laajee da ngaa mën a ojo yaa ngi dégg sa audio yi dañu bëri donc léegi problème am na saa mu ngi koy mu ngi koy mu ngi koy gonfale quoi saa mu ngi koy tiital mu ngi aggraver affaire bi déglu leen. gisoo eh waay xool leen yaram bi biñ ko de ay audio audio la mu ngi xaw a tiit tànk yi mënatu a naan léegi Cheikh Bara yéeg na fii yéeg na déglu. ni Ousmane Sonko seq parce que li tax nga wax loolu mooy da expliqué wane ni gars yi bi dafa metti euh, te yu moom fu mu xas ba ñëw day buux faw moom nga dem am foo ko yóbbu. noonu mooy li nga xamante ne bii noonu nga ko rek ci ko jógee n'est-ce pas. waaw donc yow wéral nga ni salaay moom euh, lëkkaloo na ak ndaw si. waaw waaw ban seq bi ma déggee audio bi dama demee Cheikh Bara ak li muy toog di défendre fi ak bu ñu maîtriser dossier Adji Sarr bi. Hmm. tey mu ñëw wax wax jii nga xamante ne bii lii nan la mënee nekk. waaw léegi nag nu mu demee léegi nag xam naa ne audio boobu mooy bi ëpp important. waaw audio boobu ñu gën a xaar. ay ñu ngi koy xaar audio. léegi nag boobu la gars yi bëgg a leeral léegi nag foofu da ngeen may may nag balaa maa leeral loolu. waaw. ma am tuuti loo xam ne nag maa ko bëgg leeral nag ci sama bopp. gisoo maanaam biñ ko laajee ojo bi gën a dance bi gën a am tendance léegi mu yéeg dafa dellu ginnaaw joxe joxe avance léegi day dalali xel mi wax ci lenn xam nga wax wax ni pour ñëwaat mën cee toon déglu leen léegi daw na question bi parce que saa daf ko gonfale plateau bi yëpp a ngi noppi waawal fajiri parce que xam nañu dëgg te dañoo yërëm seen nit. ay bu fekkoon ne maa toogoon palaato bi kenn du déglu ku ne dalay jaxa jaxaje maas nampaleur bu mag bi jógee fële yow da nga yëpp sénégalais mais baara mi yebut sénégalais wax li muy wax ba pare tollee sëñ Tuubaa ak Ousmane Sonko yooni murit mu koy tolleeg baara mi yebut sénégalais ana maas nampkat bi woo leen sa sëriñ nampaleur bu mag mu ne loo wax ci mbiram sëñ baara mi dafa yeb sénégalais wala yebut sénégalais waaye léegi baara ginnaaw bu ñu la laajee audio yi nga wut décalage pour mën a noppaleku mën a dalal sa xel ñëwaat lay continuer maa ngi wuy téléphone bi ci jëkk mooy. Mm. damay def publicité. mooy le vingt et octobre dinañ taxaw. Mm. ci place de l'Obélisque bi pour xeex àq ak yelleeku détenu yi nga xam ne jàpp nañ leen te nekk ay détenu politique. Ah, waaw fu mu jaar waaw damay def non damay publicité waaw waaw. ñëpp a ngi may déglu kenn du sape. fi mu ne nii li ma war a leeral ci audio bi. Ah. kenn du bousee. léegi nag nee nañ ko déglu ba ma leeral tuuti. nga publicité le 21 octobre. <laughs> vendredi daaw booy. ak collectif boobu ñu àndal man mosuma ñàkk fayda comme ñëpp den lay déglu da ngay publicité waale suma garab gaa ngi régu a tudd soixante mille pour awra bu dëng mu jubbanti su gàttee mu guddal su tuutee mu rëyal da ngay jënd bii mooy soixante mil ma may la bii bii de rëyal wangu jigéen mooy taat bi ci ginnaaw ak ween boo ko defee si fataaya complet bi mu gën a rëy soixante mille la yow ñu ngi laaj question nga da ngay publicité te man maa ngi jàngat sa mbir man da damay mille numéro yi affiché ngeen di woote am ko ak a baax fekkee yaa am fayda wala yaa mën a communiquer àndalaa bu ree ngi nii mbooleem garabi góor boo gis ci àdduna bi man vingt cinq mille doy waar a ngi ak baax te gën léegi publicité nga man tam publicité naa continuer mm-hmm. ci place de l'Obélisque pour Cheikh Omar Diagne Papito Kara mm-hmm. bu Karim Xorom mm-hmm. Xàq ak euh, Ousmane Diagne ak ñoom euh, Awadia ak ba démb am na ko ñu jàppaat ci boy yi ñëpp jàpp nañ leen tëj leen te kenn defu defu ci dara. ñu mm-hmm. fas yéene taxaw nag wax ak nguuru Macky Sall pour ñu bàyyi détenu politique yooyu. Mm-hmm. que loolu laa bëgg Sénégalais yi dégg ko. bu ah. ci des. waaw ñor na ma lool moo ma gën a tontu yi may tontu nii. muy la dinaa la tontu nag ba mu leer nañ. ak dëgg bu waaye. Mm-hmm. damaa bëgg Sénégal xam ne. réew mi ñu nekk. waaw ab république la tudd. suñuy maam ñoo fi nekkoon di ko dundee. Mm-hmm. ba jóge fi suñuy bàyyi nekk fi tey jii ñun ñoo fi nekk di ko dund. Mm-hmm. yàlla dafa dogal 2012 am koo xamante ni amul police amul gendarmerie Ablaye Wade yoroon lépp. Mm-hmm. mu ñëw wax ak sénégalais yi ci njëkk ak teraanga. mu jël réew mi jox ko mu yore ko mu tudd mu dem ci doomi aadama yi wax ñoom ak ñoom wax bi yiw ba ñëpp ne Macky Sall dafa yow. mu jël réew mi jox ko ko. yoraat yor réew ba deux mille dix mu solaat mbubbam mu yiw demaat ak nga mu ngi lay ko mu ne. Macky Sall moo sol mbubb bu yiw dem ci nit ñi yiw ñi. kon ku fal Macky Sall ak ko ànd ak moom Cheikh Bara mu ne dangay ngaa yiw. merci Bara ci wax dëgg bi. vive ñu ànd ak Macky Sall Bara borom def gis nee na da ngeen a yiw. heure xale yi dëgg la. dañ jëlaat réew mi dénkaat ko ko. 2019. waaw 2024 nag. li sàrtub réew mi wax. mooy ku toog ñaari mandat da ngay dem. Macky Sall nag nguur gi daa neex ci moom doyalut. li xel mi nekk. mooy continuer toog ci kaw nguur gii lànk bañ ko bàyyi. Mm-hmm. li may yëgal sénégalais yi nag te xam ne fii laa lañ ko mën a yëgale parce que tey xam naa ne ñoom may nañ. waaye baara tontul ci kawu aji saar bi wax nga détenu yi ñëwaat ni ñu ne yow yaa leeral ne sonko dafa gàtt aji saar yaa wax loolu yaa doon sperme bi moo bëgg a génn di buux laaj neen la ko ñu ngi déglu publicité nga baara doo tontu noonu mm-hmm. ñu la Macky Sall yaa ne Ousmane sonk wóor na la feebarul yaa ne bi muy dem dàmp lu yóbbuwu ko yaa ne sperme bu war a génn day buux faw mu génn baara lii yëpp yaa ko wax tontul ci lii nag nga bañu <laughs> yow tam baara moomoo ñu de waaw ah, lay ñëpp a ko mën. non non non laajuñ troisième mandat loolu weesu nañ ko réew mi Macky la ñu bëgg moom la ñu am ci moom yaakaar duñ ko jox ay violeur duñ ko jox ay port kii loolu waxuñ loolu ñun passé nañ troisième mandat ñun li ñuy laajte mooy quatrième mandat dana ko am wala du ko am mais troisième weesu nañ ko tontul ci li nga ne xale bi Sonko dafa euh, euh, xale bi Sarr loolu leen bëgg audio yooyu la ñu xaar. mooy jàpp na ne dëkk démb ay nit ngeen woon yoo xam ne su waxee ak yéen da koy dégg fal ko mm-hmm. Macky Sall hmm. yow yaa wax ne nit ñu yiw ñi la dem ñu sànnil ko ñooñu Macky Sall jàppee na leen nit moo tax mu teral xalifa général Mouride def ko ni baayam. ba kooku na ko gërëm naa la te li nga ma defal Cheikh Ahmadou Bamba laa la bàyyee moo tax mu teral xalifa daakaa ba mu def ko doom moo tax mu teral Cheikh Mouhamad Mahi al xalifa xaadimu ummati ba mu def ko doom te gërëm moo tax mu teral Serigne Babacar Sy Mansour ak njabootu maam Maodo ba ñu ne ko dinañ la ñaanal yàlla tey ñu ngi lay ñaanal te di nga ko gis moo tax mu teral laay ne yaa ne nit ñu yiw ñi la àndal bañ jox ko carte yaa ko wax <laughs> yaa ko wax léegi ñim jàppewu nit mooy doomi xaraam yi saaga nit ñi ci internet bi su ñëw ku taxaw saaka institution ñu jàpp la ngir police ak prison pour ñu bon ñi la nga ne ñooñu den war a génn ñii la Macky Sall deful nit parce que amuñ jikkooy nit tu vois voilà continuer waxal baara ëpp ñu xel ëpp ëpp ñum parce que moom. wax waxal mbaam xuux mbaam xuux yu tekkiwul dara ak xaj yi nekk ci internet bi ñooñu Macky Sall jàppee leen nit defar neen lakoroma seen i def neen lépp parce que li war nguur mooy sàmm nit ñi sàmm seen alal bi ñuy dajji osan bi lan la woon lu ko jaral katt nga kattoo kaay ñu àtte la nga duñu quatorze personnes de loolu dafa war a amaat ñaata milliards moo yàq yow da nga koo fay nekk yow lu mooy wax maag yow ayam taal suñu téléphone di wax lu ñu saf fay ñu ay milliards léegi nag nguur gi war a taxawaat loolu yàquwaat duñ ko def baara man su ma neen ma téegal ba ma xam ne lu dul dëgg du dëgg layal continuer baara mandat bii mu war a amaat ñu war a wutiwaat ci ñun 2024 moom ay yat la ci yàgg. laa ilaha illallah wax leen baara ne den koo laaj man man dama sonn dama sonn dama mënuma mënuma ma mun. kaar ay yat waaw. leer laa leen di wax nag yéen waa Sénégal. Mm-hmm. làmbatuwuma. boo demee fii ci El Serigne Mbaw. xam ngeen. Euh, soo defee body language buñ la jekkoo ci wax. faw nga dalal sa xel baara day dalal xelam ba indiwaat confiance door tontu ci audio yi mais temps bi mu jël commencé ko ci détenu politique mu ngi gagné sentiment sénégalais yi wan leen ne man benn baara la ba pare yow nga dajeeg Cheikh Omar Diagne munoo ko nuyu mu jaral la dem kaso dem na da ngay xeex ak xeexal Cheikh Omar Diagne bi nga bëggutoon a nuyu pour kaso c'est pas vrai. li gën a yomb te muy waree fu jullit ak borom mooy asalaamaaleykum munoo ko ci moom mais mën nga taxaw di oote rassemblement ne pour dimbale ki nga bañoon mais nag Sénégal c'est normal la ah. benn sëriñ saan balaa may dajeeg suma bayre bi dama ne ko dama bëgg bayre ak mbooloo mu ne ma jaru ko diw ak diw comme am neen mbooloo Sénégal ku ko bëgg am ko wallaay lay wax na dëgg ñàkk dafa maanaam baara nekkul à l'aise ci question bi parce que benn position la taxawee benn mu dëggal boppam waa Pastef yi ñoom Ousmane Sonko mooy seen ndey ak seen baay ñu ba ko te buñ ko bàyyee dana ko yëkka ah. wala mu weddi boppam nit ñi xam ne fenkat la du ña mu am mu ñàkk crédibilité donc léegi moo tax muy lay question bi ñëw na ci troisième mandat pour gagner sentiment sénégalais yi ñëw na ci affaire yi détenu politique yi léegi mu ngi ñëw ci waajal waaj wax leen ne gendarmerie nationale bi nga xam ne dafa war a liggéey pour askan wi la muy def pour rey la leen ngir troisième mandat au Sénégal te avancement Sénégal la ça c'est pas vrai Bara continue. cinq escadrons moo fi nekkoon. waaw cinq. yóbbu nañ ko ba dix escadron maanaam yokkaat nañ ci juróomi escadron fii ci Wakaam def nañ fi benn escadron Faidherbe fa benn escadron benn commandement mu treize benn guerre amut méttu ci benn waaye du ngeen ma ool kii dàmbooj mu ñëw na ko mu bàyyi layam-layam bi ana dàmbooj te mu ñëw sol costume boo xam ne de noppi costume <laughs> mën nga caa denc laadum bu ndaw daam yàlla na jàmm sax ci moom dama ko bëgg. li ko mën a expliqué mooy ñi ñëw di ut nguur di ko ute ci dooleeg di mën a menacer tranquillité réew mi noonu leen ko mën a expliquer gendarme yi duñu wax ak yow man may wax ak yow ci ñoom bu ñëpp yaru woon mel ni nit ñu baax ñi ci réew mi manit duñ ko takkal kenn ba yóbbu kenn prison tanga nga tontu ci question bi mooy yow li nga ne sonk dafa katt Adji Sarr loolu leen bëgg leer. continue layal. boo demee def nañ fa escadron. laay def nañ fa escadron. Kaffrine def nañ fa escadron. Tamba def nañ fa escadron. Saint-Louis def nañ fa escadron. waa escadron mooy lan def Saraya def nañ fa escadron. Kaolack def nañ fa escadron. fii am na ñaan escadron lan mooy escadron man dégguma France escadron baara mii dëgër na fit de Sénégal de ko dëgërul fit moom. doo dem escadron mooy lan dimbale leen ma yéen ñi jàng France man anglais ak alxuraan laa jàng. Kédougou def nañ fa escadron Dabo def nañ fa escadron maanaam yii yëpp boo demee ñu fay installé ay escadron gendarmerie. Mhm. jël ay ndaw. booy ci biir ak police réserve yi nga xam ne nekk école ba ca Fatick. ñii lañ ñii. Mhm. ñu ngi leen dugal ci biir ay camp ñuy entraîné. ñu jël liste sénégalais yi dundee mooy dund gu seer yi ngeen dund. Cheikh Bara li mu wax bu dee dëgg la ne mille personnes leen jël kon jaaraama Macky Sall semence a ngi wàññeeku junne nit ku leen wutal liggéey am nga jaaraama jërëjëf président bu dee dëgg la ak ku ko jox chiffre bi fu mu ko jëlee fan mooy source am parce que du journaliste lu muy wax war na ko leeral waaye escadron yi bari na. xaalis bi waroon a nekk fii di circuler ba dëkk bi du dëgër jël nañ alal ji nga xam ne sénégalais yi ñoo ko moom ñu dem jënde ko ay oto yu bees tàq indi ko fii ci Sénégal sénégalais yee ko moom ñu jënd oto pour sénégalais yi baara léegi luy problème bi jënd ay liif yu baree baree bari waa liif yi pour ñu ñàkk yare la l'islam dina jàmm la te day dóore l'islam day dóore de <laughs> waxoo fi lu bees nag baara nag bëgg naa la torop nag suma xarit bi boroom def gis waaye lii moom lii moom du kii te nga tontu ci question bi yaa ngi jël temps bi rek saa fàttali ko question bi. parce que jàpp na ne Sénégalais yi ay mbaam lañ bu yoree liif leen dóoree troisième mandat bi mu bëgg dina ko am ci ñoom. kon jàppetul Sénégalais yi ne ay nit lañ yor. déet baara nga ne Macky dafa yiw sol lu yiw dem ci nit ñi yiw wax ak ñoom wax ñu yiw nit ñu yiw ñi fal ko nga ne mu defaat noonu 2019 ñu yiw ñi fal ko. tey nga ñëwaat ñu laaj la question Adji Sarr nga ne escadron la def fële def fi escadron jënd ay oto jënd livre pour dóor Sénégalais yi baara dafa mel ni sëriñ buub ba mu gañee élection yi Kaolack benn kilifa ne ay xaj leen indi woon xaj yi ñoo doon màtt maanaam ku bugg wooteel sëriñ buub xaj yi bàyyi la ku bugg a wooteel Macky Sall la xaj yi màtt la waaye yow tamit Macky Sall la am na doole jàpp nañu dóor leen ñu génn dem wooteel ko baara baara wàññikoo ko wàññi ko wàññi ko wàññi ko wàññi wàññi ko wàññi ko wàññi ko Youssou Ndour dafa mën a wéy rek layal layal te bul fàtte question bi nag. Hmm. xam ne da wax ak ñoom ci xam-xam. dafa juddoo ba léegi bu suma gis kenn koy ñaani jabar yoo bëgg liif. bu hmm. bëgg ci moom dara yorub liif mbaam ndox la ñuy bëgg ci moom dara yor aw yet pour am ko ci moom. Hmm. Macky nag yet la yor di entraîner ay gone. ñu escadron yaa ngi nii man maa ko wax te kenn du ko weddi lu wér la. man de gisuma escadron wante waaw amul lu ko mën a expliquer. gisuma escadron mooy waaw tey jii. wàññi ko wàññi ko wàññi ko waaw dama ne may sa sale. wàññi ko wàññi ko wàññi ko dafa retraité. ñu mm-hmm. yokkalaat ko. Mm-hmm. may sa sale benn EDK waaw. waaw may sa may sa sale. wàññi ko wàññi ko wàññi ko. dafa retraité mu yokkalaat ko. Mm-hmm. Moussa Fall dafa retraité mu yokkalaat ko. wàññi ko wàññi ko wàññi ko. jeunesse bi nga xam ne dañ ne dañoo war am ay ma ay ay grades yu bees. Macky Sall nanguwul ñooñu kenn falu ci. ñaata est baax que doroo baara. ci loolu lan moo tax ñu retraité rek lay eh suma sëriñ bi du ngeen ko wax na ko liñ ko laaj mooy audio bam mu doon wax ne Ousmane Tounkara dafa laal Adji Sarr feebaru dàmplu ju na ko loolu la ñu soxla pour mu leeral ci. mu dugg ci lu ne waa xaar nen muñ xaaral ma nelawaale ba xam ne dana tontu ci loolu. li ci des mooy Macky Sall dafa def wax waxee. waaw parce que Mamadou Ibra Kane da koo ndax doo jël Ablaye Wade. Hmm. nga def ko euh, premier ministre. loolu ko Ablaye Wade at yi mu am. loolu Mamadou Ibra Kane nii moo ko mu am kenn du ko am mën a liggéeyaloo. Hmm. Moustapha Niass mi mu fal at yi Ablaye Wade la am. lu liggéeyaloo màggat Moussa Fall. dafa retraité màggat man ko bàyyi mu dem. waaw may sa sere. Hmm. ak ñoom baañu kamara ñoom ñëpp ay màggat lañ. pour te dire daal Sénégal. waaw Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh hmm. Ba. waaw ñoom ñëpp. xam nga lii moo yàq Sénégal ñu ngi la ngay joué ci sentimentalu gëm-gëmu nit ñi Cheikh Ahmadou Bamba Maba Ba pour nit ñi dañoo bëgg seen sëriñ yi buñ paree yërëm la quoi am na ñuy defee ak moo tax man ah, nekk ma ci fen maa ngi nii rek ku may critique critique ma ku may saaga saaga ma ku may xas-xas ma kuy ñëw ñëwal ci man ñu protéger sëriñ si bu ñu leen di dugal ci yi quand même nga Sénégal dañoo mën xam-xam man maa respecté sëriñ si man mi leen jël aha ubbil Assane kaa ubbi Assane man maa jël kilifa yi ber leen nële nekk man bàyyi leen seen bopp Euh, suma jongama bi waaye doo fi xaj doo ko ubbi bu baax kon de di nga demee wet mënoo dugg nii ci néeg lii la wooy wooy <laughs> live laay def non rombal mën nga romb bu la dëkk bi gisee réew mi toj waaye noo def yaa ngi jongoma man duma xuloo yooyu ñemewuma la oo danga nam ma xuloo mais sa kab rafet laa jànq man ni ma bañee yëfi ñaareel aawa bëgg moo tax man fii laa la def ah ah, ah. ku jéem a wujjeeg yow rek laa yërëm mais tu sais merci bi nga ñëwee danga ma jaxase maa ngi woon ci sëñ Bara jàpp temps nga romb def daagu bu ndaw xamatuma lu ma war a wax ah. ay jégalu de jégalu ah. dañoo xeex liberté Sénégal ba am ko mm-hmm. ba ñuy taxaw di jamono tubaab bi du dañoo mënoon tubaab bi moo tax ñu jàkkaarloo moom waaye dama leen a wax ne ba tubaab yi ñëwee bëgg a noot suñu maam yi suñu maam yi dañoo dem ba jeex ñii mu nooteel gii Macky Sall yor hmm. tam yàq moo yàq euh, Guinée yàq Guinée gii parce hmm. que Burkina Faso troisième mandat ko yàq hmm. moo yàq euh, fépp ci Afrique te dana yàq Côte d'Ivoire loolu lii Macky Sall jël nga xam ne buumam nooteel la ba bëgg koo jël toog ci kaw senegal yi ne danaa danaa leen gouverner par force maa ngi ñaan bépp doomu Sénégal. Mm. Macky Sall lu mu jaral Macky Sall pour mu wékk ñu buumub jaam na ko jaral sénégalais yi pour ñu dagg buumub jaam ki. d'accord loolu laay wax sénégalais yi na ko ñëpp xam. jërëjëf parce que nee naa la nee naa la yor ba bi sama rappel. non non non dama ne plus de man xam naa waaw dama ne sooy mi xam na. waaw léegi nag mbirum Adji Sarr. <laughs> léegi mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sow. bàyyi ma répété la question parce que. non non non xam naa xam naa am na ñu mën a dabee. waaw mu. sëñ Ba Rydhi ba tey nangu tontu koy suñu bi nga wax ne. gars yi bu fekkente ni bi man nuyu. ay damaa dëggal rek ne damaa wax ne damaa damaa damaa dëggal ne Ousmane Sonko daf doon. waaw am lu mu seq ak Adji Sarr yi noonu la mel. d' accord aywa. léegi loolu. su fekkente ne nit ki dafay toog doog a dab sama émission bii. waaw loolu dina ko jaaxal. lan moo tax sëñ Baara wax lii ci audio yi. waaye li ma wax ci ojo yi. waaw boo arriéré sama émission bi nga xam ne ci mois de mars ban date sax la tolloon. 11 février. waaw mooy première émission bi ma def. ginnaaw bi ñu nee Adji Sarr jël na plainte teg ko ci kaw Ousmane Sonko. waaw mooy 11 février. Mhm. la ma waxoon. yaa ngi yàq suma live bi xale mu jigéen. première xam ne ci baa bii laa toogoon. waaw micro te maa ngi jàppoon temps nekk ci Cheikh Bara. ñu maa ngi jàppoontaan temps nekk ci Cheikh Bara di analyser lu doy war nga dugg rek perturbé ma non même boo génnaatee sax danga ma perturbé ba pare. askan bi nga war a jéggalu lu tax ngeen di wane faiblesse yi nit mu nekk maa ngi doon wax mel ni boroom xam-xam buy dëggoo tëgg jigéen dugg rek ma noppi oui yéen dépense bi ma lay jox ci garab yi lay jóge li mooy àndala buri doy waar ak régu aj régu mooy réyal koy guddal koy bu baax bi aji sëñ Bara continuer perturbé naa sax yéen su ma su ma nit ñi ma doon seetaan laa soloon mm-hmm. la ma wax ci audio ba wax naa ko fii boo gën a dee xam naa nag dañ ma digluwu doon ca booba jamono mm-hmm. man damaa xëy waaw dégg nga ne ku tudd Adji Sarr dafa def port plainte Ousmane Sonko. Mhm. ma ne lu mën a xew rek mooy Ousmane Sonko moom def demut foofu. mais mhm. Ousmane Sonko génnee daal di taxaw ne man dem naa fa. Mhm. man damaa bokkoon ci sénégalais yi nga xam ne dafa ne kon kii ni ñu ko fa waxal moom la. fas yéene taxaw ci dëkk lu Ousmane Sonko am am doole. ak lu mu bari bari ay militant bu teree dëgg gi nga xam ne dañ ko war a wax ñu wax ko ko. dañu waxtaan trop fii. dama daan wax wala talbisul xaq bil baatili wa taktubul xaq wa antum taalamun laaya jooju bii naa coowul aji saar gi bis bu nekk ma jàng ko wala li ma talbisuun al xaq li ma talbisuun li ma talbisuun xaq bil baatili wa taktumuun al xaq wa antum taalamun. bis bu nekk ma jàng ko baara waxal wolof rek yàlla baax na. seetaan leen émission yooyu ndax onze février maa ngi sol grand bu weex. fii laa toog ma ne. bu benn sénégalais wax ne aji saar day fen parce que Ousmane Sonko daf ko fekk dafa nit liggéey kon bu ko accusé loolu mën naa gëm Adji Sarr cinquante pour cent. Mm-hmm. damay gëm Adji Sarr cinquante pour cent laa wax. Mm-hmm. li ci des ñu may yoon mu def liggéeyam. waaw fas yéene nag mm-hmm. def liggéey da nga ne dafay fen lu ne nga dugg ci génn loolu nga mujj wax lu changé baara lu sonn ci baara sax. li ci bëgg du wax. waaw te audio yii boo déggee ni ma ci waxee. war ngaa xam ne nag ñi doon wax naan ñun Ousmane Sonko moo ñu préparé. ñu pour bu nee weex nañu ne tàll bu nee wow ñu ne mbokk yi suma jabar ñëw na <coughs> mu ngi nii toog dama doon live di waxtaan parce que dama am temps jigéen den koy fonk den koy bëgg suma jabar ñëw ne fii lay dagg live parce que man damaa perturbé mënatuma def dara ngeen jéggal ma ko mbiram Cheikh Bara Ndiaye mënatuma ci wax pare naa jërë ngeen jëf li ci des na ko xel mottali. maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax jërë ngeen jëf ci seetaan bi nit dangay am fulla xam farat boo toogee di wax ba sa soxna ñëw moo ëpp priorité ñi lay seetaan ak la ngay wax bàyyil ku nit ñi dem waxtaan ak moom jigéen buggul ku ko ignorer te bu fi problème amee tem ñu ne àq di ma daal di ma reetaan du ma ko nangu du ma tëj nag te waxuma leen doy waar xam ngeen ko bu baax doy waar dix mille francs lay jar danga koy naan sooy seere moom jeex na boo koy naan rek toogal tuuti dalay yóbbu douze dix bii mooy regu day guddal réyal Alpha Sall bi suma live bi yàqu ne yow bii mooy àndalaa buri ngeen xamee ko noonu fu mu nekk damay couper live bi wax ak soxna si lu ci des jeex na wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu sant naa leen gërëm naa leen ah. sant naa leen gërëm naa leen waaw voilà ngi noonu man fii laa doonee sëriñ damay toog ci kaw soxna ci suuf ci biti duma sëriñ merci beaucoup